asalaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi leen nuyu di leen sergal di ziar ñëpp si samedi matin bi foofu nga xamante ni mooy Weekend Star bonjour. tey nag maa ngi fii ñëw dugg fii ci parkinu oto yi daal di seet si waa Kalsan automobile tey ñoom laa sees si pour ñu wan ma seen xeetu baax baax oto yi nga xam ne moom la ñuy jaay. fan leen ko jëlee donc topp ma topp ma ma dikkee. ma dugg mais dama dugg rek commencé gis ay oto yu rafet te xam nga man oto bu rafet dama ko bëgg xam naa waa bi instant yi nii seen yaram mi ngi daaw mais fii rek lay xewee bonjour bonjour mais ci loo ne. ça maa ngi sant yàlla bu baax. ba yaa ngi ci jàmm. ça alhamdulilah waay. dafa mel ni yaa ngi ci activité maa ngi ci kii. naa ne nga ibi benn Mercedes la dafa mel ni. waaw waaw Mercedes bi su dañuy ñëw pour wan ko juste suñu benn client bu nekk nii taxaw. Mhm. donc dafa ñëwoon seet si ñu. dama lay bàyyi nga wan ko ko ñu xool noo koy wane en ay ci léegi nanu xool waa Sénégal gis ngeen ni ñu koy wanee oto bi. mu xool. samedi bi xëy si nañ ci jàmm ak salaam ñu ngi nii bon di xaar suñu clients yi nga xamante ne si ne client la yoo xam ne ñoom kalsaan automobile rek la ñu préféré di ñëw pour di jënd si ñun ay oto parce que depuis ñu jàppante ak ñoom ba léegi vraiment gis nañ ñi ñoom euh, oto bu ñu fi mën di jënd rek soit danañ ñëwaat wala bu ñu amee keneen koo xam ne dafa soxla oto fii lañ koy indi. sant yàlla bu baax Kole. naka samedi bi. ça va alhamdulilah ñu sant yaa ngi noos. sant yàlla bu baax gis nañ ko concentré wu oto bi lii lan la Kia. Kia mille deux mille deux mille ah, ngay jëndee oto saa su nekk. waaw ah, fii laa jëndee oto saa su nekk. parce que ñoom xam nga rek li jaay dafa wóor dafa baax. Mhm. pare dañ lay teg ci ay conditions yu baax quoi dañ lay jaay ba pare topp. vraiment ñu ngi rafet lu ci seet si bi ngeen seet si Kalsane automobile aussi. donc ñun daal ñu ngi waxaat client yëpp ni leen ñu ngi fi pour yéen bu kenn am lu muy ragal wala lu muy tiit ci côté oto yi prix bi seer na wala nangam oto yi seerul te dinañ ci def lépp luñ ci mën a def pour nit ki am oto rek ñu ngi fi pour loolu donc loolu rek moo ñu fi bàyyi ñoom ñoo ñu fi bàyyi ñoom client yi ñoo tax ñuy xëy si fii di fi ñëw tout le temps pour toog xaar leen Kalsane automobile donc euh, mi ngi fii ci VDN bi ci à côté immeuble Mariama ci diggante immeuble Mariama ak Expresso bi